ma ñëwee fekk sama dëkk mu toll fii mu toll nii ma yaakaar ne su ma ñëwee tàllal sama loxo askan wi war nañoo mën a xam ne man Mbàkke rek moomu ñu ak njabootam Mbàkke ndax man njàggoon naa ci àll bi ci alal ji yore nii su doon ñaari fukki safoor ne maa leen jëndal ay oto jox leen ñu liggéey kon su ma ñëwee fekk sama dëkk bi ko loo ay transit oto di fi jaar yoo xam ne jaar di dem donoy Mbàkke kenn amu ci ñu jël seen garage bi teg ko ko ci fële mel ni ab muy département boo ne département fi fële fi la jaar Diarra nekk Sëñ Bousso bi nekk Sëñ euh, euh, euh, Mame Cheikh Anta nekk fi Mame Cheikh Rafal am fi këram ñu bëgg ko def loo xam ne maanaam moo tax ma yëpp sama loxo tàllal sama loxo kon nag santaat naa yàlla bu baax ci li nga xam ne maanaam ndam li ñëw sama loxo ànd koog staff bi ma loo xam ne dama ko àndal ñoom muy Alassane Diagne ak Galas Diallo ak Samba Sall ak ñoom Modou Diop ak ñoom Galas Niang alaa jigéen ñëpp ak Tawa Samb ànd koog man Mbàkke ku bëgg Mbàkke mu baax rek ànd nga sama yàlla sama gën projet yi mooy fas yéene daal njaboot gi nga xam ne maam dañu ñu koo jox yaakaar ci man yàlla bu yaakaar tas fas yéene naa lépp loo xam ne maanaam tey département bi da ko am war a jëm ci moom ku koy xañ te amul du jàmm bis ni tey moom ne bis ni tey moom jàmm ndax man topp naa projet yoo xam ne nañ ba directeur maîtresse laaj ko lan moo waral vert blanc yi mënul ñëw ci suñu département bi mu xamal maanaam ñun xañuñu leen ki fi nekk moo ne maa ci ginnaaw idika kon la ma doon xeex yaakaar naa kon ñoo ci loxo kon fas yéene naa taxul tàllal transport tàllal naa ñëpp ndax suba rek moo gañ ak transport yàlla dafa def ne tey ñëw tey dañ mel ni waaye fas yéene naan tàllal ñëpp ànd ak ñëpp pour liggéey waaw tàllal kenn xajuma kenn wax ji nag bëri na boo ne dañ naan Mamor ñi ngi def nii dem waaye ñaanu mu yàlla def lenn lu baax la sànq kon maa ngi leen di sant bu baax di ñaan mbooloo mi àndoon tamit dafa leen ndam dafa leen xewal waaye li intérêt Mbàkke bi ko fekk Sëñ Tuubaa ak Mamor jaaral Mbàkke ak Tuubaa la kenn mu leen tax garage bu mag bi dañuy jël suñu garage dem fa ndax garage bi doomu aadama yi ñoo ko moom population Mbacké ñoo kon population Mbacké liñ moom dañ leen koy daloo ay dañ naan dañ koo baaje baaje amul même suñu leen ko baaje population bi la ko gouvernement bi jox tabaxal leen ko def fi éversi bi def ci ay alalam kon ku ñuy maire ku mu a jox garage teg ko ay lofa da jox terrain boo xam ne nii waaye lii gouvernement bi ko moom lu askan wi moom askan wi taale soxla nañ ko dañuy taal jël jël seen alal kon loolu andi ceeg andi ceeg yéen ñi nga xam ne maanaam ak sëriñ sëriñ ñëpp taxaw ndax il ndax foo fooy mën di jógee ci fii ci boo ne Mbàkke laaj bi ñu dama jaar loolu fu ñu garage bi moom fii mooy garage bi njëkk ci garage kon loolu moom taxaw nañ ci ak li nga xam ne mooy intérêt Mbàkke ak doomu Mbàkke taxaw leen fas yéene jàppale ci cent pour cent sama diggante Idika sama diggante Idika amuñu benn dafa seerab garage di def li nga xam ne maanaam la ko garage may Mbàkke tamit dañu am seerab garage di def leen li Mbacke Mbaye amuñu benn problème mango sama mag la sama kilifa la tamit jox naa ko respect boo xam ne maam te ma dégg ma wax Idika Tall fas nga ko yéen a ñaar non fas yéene amul lu ñuy taxu la ndax Mbacke Touba kenn mu leen tax gën a gën a gën a ñu solo transport élèves yi bokk ci mhm. ndax boo xoolee tey Mbacke tey soo xoolee élèves yi bu ñu wàccee ni ñuy taxawee ak danse bi ñuy doxee ni ñun war nañoo mën a xalaat ñun si transport war nañoo mën a xalaat indi fi lu koy saafara am secteur bi ñu ko yore ñoo xam ne maam lañ koy doxalee ñun ak liñ jël destination loolu demee ndax élèves yi dañ leen war a toppatoo ñu jàng di delluwaat ci jàmm ak salaam loolu moom la koy maye déglu ma dama la luy intérêt Mbacké Mbacké mosu ay trois ñetti ñetti tracé autovacc ne Mbacké nañ ci cinq cent cinq cent cinquante neuf personnes yoo xam ne maanaam benn doomu Mbacké ba masam na loolu la am naa ci auto yu bees amu ci ci comme ni ñu commencé danañ woo ñëpp ñu ngi nii taxaw utuma si ñoom ñaar dërëm utuma ko seen morom man kay may wut di leen jox hmm. waaye utuma si ñoom dara ndax ay doom lañu yu ma yërëm doom nag boo ko yërëmee da koy yërëm si lépp mooy si aw aw ab coono ak alal te maa ngi leen di ñaanal yàlla ngeen ma suul man yàlla bu ma leen suul ku am doom ju baax soo sañoon moo lay suul waaye doo ko suul waaye bëgg naa it bala may dem ma bàyyi leen fi lu ngeen mën a jariñoo ma waral coono bi waaye fokk yàlla forn ndam li nag ñëw bu yàgg xam naa yéen a ko bàyyiwul xel keroog bi nu daje fii sëñ bi toog ñun ñëpp nu nangu ni sëñ bay sunu sëriñ mooy sunu kilifa am ku taxaw si mbooloo mi ne am na keneen kuy kilifaam ku dul sëñ bi toog ma ni booba la bal bi tàkk kon ñu ngi sant yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin fi mu ne warunu dugg neeg sant yàlla moo ñu war fukki at ak juróom ma yor ko meeru Jandeer mosuma gañe ay élection ba nit ni këng mosula am yàlla bu la mayee bul bàkku da ngay wéet ci néeg sant ko kon nañu wax alhamdulilahi rabbil alamin li wéete woon nag mooy nanu takku te laxasu ay yàqkat ngi si réew mi waaye nun naan doon ay defarkat te yàlla nag ñiy defar la gën a mën a for ñuy yàq mm-hmm. te yàlla ku mu nar fay du la liggéeyloo ni yàlla mayee ndam fii yàlla na ko yàlla may feneen ci barke yonent bi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant.